le 29 avril le ñu président de la république Bassirou Diomaye Faye dafa jël décision de suspension des procédures domaniales et foncières ci yenn zone yi nga xamante ni yaakaar na ni ñu ko yore ci wàllum suuf wala nañu ko séddalee wala nañu ko doxale lépp leerul benn zone boobu ñun mu laal ñu bu baax ndax Thiès la muy Mbourkat wala muy nouvelle ville de Thiès bi mu jëlee décision boobu indi na coow ci réew mi waaye yamu ca le premier mai ci suba teel mu gane suñu fii ci Thiès and ak ay ministres, and ànd ak gouverneur les le le préfet ak les chefs de service waaye ñun maire aussi ñu boole woon ñi ci visite boobu président de la république Giselle bopam ka mu Mbourkat, Gisèle bopam superficie bi nekk avec ak nouvelle ville 484 hectares ak le bukki qui nga xamante def avec et nouvelle ville de Thiès bokk ko ay chef de service gis ngeen li ci génn ci presse di ay doomu aadama yoo xamante ni ëpp ñu benn mérite benn Thiès waa wala benn sénégalais lu peut-être la proximité avec le régime de l'époque ñi am ci ay parcelles yu bëri wala ay hectares hectare hectares yo hectares yoo xam ni dara dara justifié le président de la république qui déplacement bi mu ñëw Thiès gisal boppam waaye di ko gërëm ci engagement du président de la république jëloon man ak mom ak yalla fële ci Cap Manuel ci bu le 3 janvier 2024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

mais ne monsieur le maire suivre dans cette émission bi nga def rafetlu sa position bu baax a baax waaye loo xam ci mbuurkat rek am na lu ñu des ñu waxtaan ci lu yàgg ci ci jour muy appel ñaari fan ñetti fan mu defaat ma beneen appel mel ni information yi mu xam ci mbuurkat dafa nous avons un long entretien ci Mbourkat ni ma monsieur le maire est-ce que mën nga ñëw mercredi prison cette semaine On est à ban heure ni ma 16 h Madame, mercredi boobu Cap Mania. Je ngi fa avocat maître Babacar Ndiaye Je wax moom lu amul sédd maître Babacar Ndiaye laa fa avocat bu Pastef yaakaar naa ni ñu bimu waxtane ak mom man ak mom ñu wéet mu wax ma lu bëri ci ay scandale ci information yu mu yor en tant que inspecteur l'homme wax ma ay hectares ay parcelles ay sociétés avec précision parce que yoruloon nag daf na cité di cité ay hectares ak précision boo xam ne xam naa ne mu doon wax làmbatu parce que toute société est compliquée. Nous ma jël du jël aval ci benn autorité xanaa lu population yi nga xamanteni ñom ñoma ñoo fal ñu dem burkat les vidéos sont encore disponibles man ma jëkk a wax ni li xew burkat c'est une bombe et bis bu éclaté lu bëri nit ñi dinañ ko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

Comme nous ba tay ñun ñuy alerte may wax di répéter ni les maires qui sont là qui appellent ay maires d'opposition, opposition n'ont été ni de près ni de loin impliqués dans la gestion muy Mbourkat muy nouvelle ville kenn impliqué wul les maires pourtant on avait amoon nañ ci xalaat ci lu Mbourkat mënoon a jariñ bu baax a baax porté woon naa un projet ak ñoom ni leen Mbourkat de ginnaaw bu ñu régulariser ñi ñu war a régulariser jox leen seen i mais la fay suuf Thiès war na cee a gis boppam war na ñu régulariser quartier bu mel ni Kër Maam a permettre ñu régulariser quartier yu mel ni Pencim restructurer quartier yooyu ndax quartier yooyu restructurer loger famille ak ay projet ville de Thiès. À une mairie commune, ma wax ci zone économique locale pourquoi zone économique j'ai dit monsieur le ministre maire États-Unis France vous recevoir l'ambassadeur de la Russie de la Chine a ay hommes d'affaires qui ont des pour Thiès industrialisation investir tabax industrie bo xam doomu ties dinañ ci gis seen bopp mais ñooñu suñ ñëwee fan nga ban site nga leen di jox mais parce que amuloo ko en tant que maire man ko su ngeen ñu jàppale woon ñu am zone économique locale tey maa ngi ñu jëm Turquie ci benn voyage incha allah mais soo demee homme d'affaires yooyu bu ñu bëggee investir ties suñu ñëwee mën nga leen a jàppale ñu toog tabax loo xamante ni doomu ties dina ci mën a gis seen bopp faale wuñ

bureau municipal bi ñu ngi fii xam nañ ni ñëw naa informer le bureau municipal ni 120 terrain de la ñu ci jox ñun waa en tout cas institution ma yóbbu ko conseil municipal terrain yooyu nekk na fa lu ëpp presque at am sax ñu démon bama ci méré ni maire xanaa mu bëggul am ñu bëgg waxtaan ak ñenn ñu am expérience ci dëkk bi nekk ci conseil municipal wala bureau monsieur le maire terrain yooyu maire bi jël ko ak ñekk koo jël moo moo ñooyam li xew xew te am nañu ko soxla te ay la yooyu wax nañu dëgg am nañu ko soxla ginnaaw bi ñu génne nord di coow li bëree génne est ni cent vingt yooyu jox nañ ko mairie de ville de Thiès man yàlla dafa def lépp lu may doxal ci conseil municipal bi damay dem ci ci conseil municipal bi ma rendre compte nee de lii de moo fi am lii de moo fi promesse lii de moo fi gën ak lu mu mënti xew dossier bu mu mënti doon ñenn mën nañu reprocher ni pourquoi mu jox conseil municipal conseiller yi

xam naa ko bu baax ma tax keroog bi ñu ñëwee conseil municipal am ñuy wax data Hélène jël parole ni ah man de mën na maa wax au nom de l'église li monsieur le maire def pour l'église xaw ma nag kaneem ma koy gërëm bu baax a baax ndax moo am na dossier yu ñu gère di ko gërëm bu baax a baax ku am taxawaay la ku am expérience mais ku ñemee aussi assumer position te dëgg rek ak yeneen yoo xamante ni responsabilité bi ma yor mënuma may manam nangam ak nangam mais muy ay tarixa muy ay chef religieux wala muy association religieuse yo xamanteni ni liggéey nañ ci dëkk bi loo xamanteni ni bu dee dañoo am problème siège bu ñu am bu ñu ñëwee gis monsieur le maire monsieur le maire dina ci taxaw lu mu mën waxuma il a raison waxuma il n'a pas raison waaye yàlla def na man may maire responsabilité jël décision man ci sama ndor la ne dama koy jël waxuma ni du ma def faute du ma def erreur lépp lu ma def noonu la lépp lu ma wax noonu la man dama weex tàll musuma bàkkaar déedéet ma dàq jum ñëpp waaye bu fekkee nit ku am yéene ci Cees ngeen di wër kenn ñi nii bu fekkee nag malaaka mu seetlu ci géej gi yéeg leen ci kaw asmaan seeti malaaka yooyu

bu fekkoon bëgg naa personnellement quota ci mburkat ma dem jël sama quota ndax proposé nañ ko loolu mooy dëgg ca lu weesu quota yaakaar naa waaye awma benn parcelle ci mburkat soxla naa parcelle de waaye la ma waxoon ci émission kër gi ma fas yéene dëkk man ak sama njaboot yàlla na ma yàlla dimbali ma tabax ko ci sama ñaq kon quota boobu waajoo ju di wax aka am quota mais maa ko suur maa ko suur yam ci li ma mën a justifier cent vingt yi nga xamante ni jox nañ ko conseil de ville ma ñëw ci conseil de ville ni lii la laneen lu ci génnaatoon lo xam man nako indi ci conseil de ville dina ko fi indi waxtan ak ñoom yaakaar na ni loolu la mëna wax ci loolu suñu yitte yépp nekk au service de Thiès nekk au service de l'intérêt général nekk au service de la République loolu moo tax keroog ba ma dajee ak le prisonnier politique Bassirou Diomaye Faye futur président de la République du Sénégal waxtaanuñu fa lu dul Thiès Thiès Thiès rek Sénégal Sénégal Sénégal rek la présidentielle il n'a jamais été question de poste Thiès lañ fa Moi, je ne sais pas fi ñëwee Thiès la wax Comme, en tant que maire mënuma lu dul jàppale le président de la république du dossier bi taxaw ci wetam ci wàllu politique ci la communication ci wàllu engagement ba néew gi doole yi jot acte. àq population yi jot seen àq parce qu'il y a trop d'injustice dans ce pays waaye di ko ñaan yaakaar ni jël na mesure bi kon dinañu orienté waat doxalin bi nga xamanteni doxalen nañ ko Mbourkat ak Nouvelle Ville te li nga xamni moy intérêt population yu ties li nga xamanteni moy intérêt ville du ties ak commune yi fi ne nañu ko préserver ñu jappalé len parce que projet yi ñu am mu melni garder gros porteur projet yi ñu mel am lu melni ni hôpital lu melni ay cimetière le même, ni ko zone économique locale le même ñi yenn ñi nga ay victimes lañu chaque année ci inondation ngent ñu jàppale leen ñoñu gisi seen bopp des gis ndax dafa ci kon ñun ci nouvelle politique mooy gérer intérêt stratégique bu Thiès ak population lolu mom moom rek moo ci mën a suñu taxaw li nga wax ci audience publique yi wax nga deug lu am solo yaakaar naa ni ñu ngi ci xalat def ko ci benen format bo xamante ni dañ ci impliquer société civile ak ku melni forum civil

giñ ko def maire biñ ko def ministre ndax yàlla dafa def bi ma nekkee maire de la ville de Thiès ak léegi saa su ma déggee Thiès waa bu am ndombo tànk ak fu mu mënti nekk fexe naa ko ak moom félicité ko keroog ba ñu nommé Abdoulaye Dieye directeur AIBD dama ko félicité yamuma ca de en tant que maire ma déplacé au fekk ko bureau avec une délégation du bureau municipal félicité ko encouragé ko wax ko suñu ubbeeku ministre yi ñu nommé yëpp te ñu le ministre Ousmane Diagne et naa ni félicité naa ko Birame Diop ak ñeneen kon Birame suñu xarit la suñu camarade camarades, suñu collègue collègues nekk conseil municipal am travail, taxawaay ci yenn question stratégique avec université bi am solo malgré li mu doon président groupe parlementaire donc kon dañu koy féliciter maintenant nous nee dëgg yàlla man Babacar Diop ban pouvoir laa mën a am ak fan laa ko mën a tibbee ak kan moo ma ko mën a jox ba ma mën a wax ci conseil municipal Thiès Nord nan la war a mën a doxe su ma ko defoon def naa dig ma xeet wala waa Thiès xeet ma conseiller ya nekk Thiès Nord gënu ma leen responsable li règlement bi def dina ko doxal ak préfet la ci wara a am dina ci am ku ñu tànn mooy maire ñun ci nañu liggé ak moom lolu Babacar lolu la ci mëna a. je dis quel type de profil monsieur le maire question bi loolu parce qu'il est adjoint euh, il était adjoint en ville. Babacar au ma pouvoir définir un profil du maire. Thiès Nord. J'ai du respect pour les populations de Thiès Nord. J'ai du respect pour les conseils municipaux de Thiès Nord. Un engagement, un xam-xam, un travail du conseil municipal. Je préfère faire confiance. Wa mairie Thiès Nord, nañ définir profil bi ñu bëgg nañ ñu ko indil ñu ànd ak ñoom liggéey. Anne posé une question bu am solo dafa bëri. communes yoo xamante ni ceinturé nañu Thiès et na sax ay quartiers yooyu wax ñi naa la Thiès Thiès en vérité quartier yooyu nekkuñu cees ñi ngi ci territoire yeneen commune c'est ça la vérité léeg day poser problème yu am solo parce que quartier yooyu dañuy dem ba waa Fandène du ñu leen defal dara parce que nee nañ waa Fandène dañuy jàpp ni ñii dëkkuñu dëkkuñu Fandène buñ ñu amee lu ñuy def fandel lañ koy yóbbu Thiès aussi dañ leen di fàtte mais ñooñu même bu fekkee dañu dëkk ci territoire par exemple fandel mais Thiès la ñuy defee seen lépp Thiès la ñuy xëyee marché Thiès la ñuy jàngee Thiès la ñuy voté yaakaar naa ñi may liggéey ci conseil bi parce que xam nañ sama politique ci mbir moom sama position mooy fu man Thiès waa nekk ñu fekk la fa fu Thiès waa nekk ci suñu territoire la bokk territoire mais ni intercommunalité rek régler problème je pense que initié woon déplacement personnel en tout cas en tant qu'institution wër toutes les communes limitrophes je pense que dinañu ko renouveler en tant que maire déplacé à commune parce que dit le jii la nous a si farata ñu am Matar Cissé mi ngi wax ci ay autorité ñu ñu épinglé yalla dafa def duma juge yalla dafa def duma procureur yalla dafa def duma journaliste d'investigation Yalla dafa def

si ñu toog dafa ànd ak responsabilité posé wu débat individuel muy masamba muy Mademba loolu intéressé Lui ñu intéressé moy suuf si nañu fexé ba ties gis ci seen bopp ñu delloo ko askan mais awma vraiment posture di wax diw diw diw diw donc vraiment lolu mënul nekk suma attitude par rapport ak sax li ci am ñëpp xam nañu ñëpp ñëpp xam nañu li ci des dem leen bu ngeen gisee ñooñu peut-être ngeen wax ak ñoom mais vraiment wax dëgg yàlla mënuma wax ci loo xamante ni ci surtout débat individuel boobu li am mooy li xew mbur kat d'accord mu ci musuma ci d'accord wax naa ak ku mu mën ci doon ka ca jël ka ca jëlul donc loolu laa ci vraiment mënoon a mënoon a wax Isidore ndax mën na maa publier liste sans verre loolu laa naroon de yàlla xam na ni xalaat na mais dama am ñu ma waxtaanal ñu ma monsieur le maire ki dëkk sàngam fee nekk imam ñi jox ko ko moom ban faute la def ba ñu wayu jël turam di ko sànni ci réseaux sociaux yi c'est un yore xadaram di kilifa diine ni day tabax jàng responsabilité responsabilité moo publié parce que position yi ñu dafa responsabilité moo ko war lu lu bari responsabilité journalistes nga responsabilité mais ñun responsabilité bi responsabilité mère ba aspirer la waruñu ko Isidore conseil municipal bi 86 conseillers mais il déposé a ñëpp déposé wuñ am ñu ci conseil municipal bi sommes ñëw sax conseil municipal am ci conseil municipal bi tek seen conseil municipal. c'est des procédures très compliquées un débat s'est posé est-ce que nous dul conseil municipal est-ce que nous naa sax am mais comme dama waxoon ni conseiller bu bind dina am sama cadre googu de ce qui fait que conseiller bu bind je dis que nous ci ni moralement ndax il est régulier ou il n'est pas régulier débat boobu du ñu ci dugg mais bind na dugal na këyitam par rapport mën naa identifier ay conseillers yu xam ni dañu ñoom duñu bind dañu ñoom vraiment mënuñu bind mais conseillers yooyu Isidore ñu am taxawaay lañ ci conseil municipal bi doyen ñu Diop mi xam na li may wax du question yu d'accord ak maire ak d'accord maire mais amul conseil municipal bu am dinañ ñëw commission am dinañ am adversité bu ñu j'ai pris la décision de dire que nous nañ leen jox par rapport à ça donc lolu la mëna wax ci conseil municipal bi li exclusivement

mais ay la ñi nek ci conseil municipal bi mën nañu leen nangul ñu wax dëgg yalla du tardé session am engagement ci conseil municipal ñooñu ñu japp ni amon na ay échange ñëpp am nañu ci d'accord mais comme le dernier mot me revenait ñu japp ni nañ ko def généraliser règle boobu li ci dess maire mo jël la décision au niveau de l'administration ak yeneen demande yi nga demande ni identifié dans la ville Isaac Dabakh. Dabakh. Dabakh ah Dabakh Isaac. Eh, wax nga dëgg peut-être ci ñooñu nga xamante ni euh, dajeguma ak ñoom c'est ça la vérité mais association yi nga xamante ni ñi ngi ci Mbourka di ci yëngu nekk ay victimes dama nekk en contact permanent ak ñoom ñoom ñëpp recevoir naa leen dem naa fa. Ce nañ ci ay réunion wax ak chaque jour sama position ci la bu fekkee lépp ngi dox ngeen di maire dina noppi bu dem ngeen ba am problème wala ñu ngi nangu seen i leer su ngeen ma bokk ak combat chaque jour maa ngi ay contact ak ñoom te loolu leen dama leen naan ci la tant que ngi jot wala administration

fofu ñu ko bëgg positionner parce que léeg-léeg da ngay wax ak ñoom ñu ni la oui il faut ngeen xam ne site bi nekkul ci territoire Thiès mais site yooyu yëpp ñu ni nekkul ci territoire Thiès ñu ñu bëgg ko tuddee nouvelle ville de Thiès <laughs> donc je pense que loolu dafay poser ay problèmes mais réforme yooyu mënta ñàkk ndax xam nga tey dëkk bi dara mënu ko téye découpage boobu tôt ou tard fa la ñuy jëm parce que Thiès dafay màgg te góob ma ni kay dina téye Thiès na ni Thiès léegi fii lay am moo tax li am ku doon wax waxtaan ak commune yooyu am solo bari na ci loo xam ne tey jii mi ngi ci kër Moussa mais Thiès mooy màgg jëm foofu toogu ou yooyu dafay dugg su foog ñu ni ci kër Moussa la dafay dugg ci Thiès.

c'est à partir de Thiès mooy mooy point central du par rapport bañ tëddee ko nouvelle ville de Thiès mën nañ ko tabax ba paré ni li bokul ci Thiès ëkkat lool mënul nek ça veut dire ñom ñu mu mu neex len ak mu naqari leen tôt ou tard dafay dugg da fay dugg si ci ci biir ci biir Thiès donc découpage bobu yaakaar naa ni tôt ou tard dinañu ca dinañu ci ñëw Mohamed Silla je sais pas si je comprends bien ces questions par rapport aux autorités politiques, autorité politique je ñu ko mënti jox ak ku doon man du personnaliser débat parce que ñenn ci ñooñu am naa ci ñoom respect dañ leen ko jox ngir ñu wat ko askan wi du ma ni noonu la du ma ni du noonu le nañ ko askan wi wala alors c'est askan wi ay le yeween 200 hectares pour un individu c'est indécent c'est immoral c'est amoral 13 hectares pour un individu c'est indécent c'est immoral 10 hectares pour un individu 7 hectares pour un individu 8 hectares pour un individu

ça doit être gênant pour un individu comme 200 hectares lan nga le Sénégal contrôler le Sénégal le xëyal réew mi foo xëyal waa Thiès bañ mañ la jox 13 10 20 14 hectares 4 5 3 waxuñu ay parcelles 1 hectares Vous wax waxuñu 1 ay hectares je dis que ce serait trop facile je pense bien di jéem a dugg ci ci piste boobu di jéem a dugg ci piste boobu est-ce que j'étais informé que certains proches amul ku nekk ci dëkk bi di journaliste di homme politique bu yëgul tong-tong bi amoon fii moom ñëpp yëg na loolu moom mooy woon burkat ba ma fay dem ni scandale donc am na lu ñu ci yëg moom la ñu toujours dénoncé ñi ñëwoon impôt et domaine di rang loolu am ku ko yëgul mais responsabilité dina la tax a def mbir responsabilité aussi dina la téye ci ay kàddu parce que après tout maire lañu dafa am benn journaliste Babacar JDS FDS université la différence entre temps et Babacar Diop est devenu maire de la ville de Thiès et parle au nom des centaines de milliers de gens c'est ça la différence si tu es maire de cette grande et belle ville de Thiès il faut beaucoup de retenue. Il faut être responsable parce que Thiès a un rang, Thiès a un statut. Peut-être moi, je peut-être je y a gis mais les am solo qui suis une position qui réunion yi ñuy def qui qui qui sont ci wax yi

wala am na yu ñu ci informé mais day nekk comme rumeur comme rumeur parce que am document ba du la ko jox wala il koy promettre ba nga ñëw mu tëj téléphone am le mu wax la ne je comme da nga yor liggéey boo xamante ni bon bu peut-être d'investigation peut-être euh, wala Babacar dossier mën naa mu mu mais yeneen yi je pense que ni sa ak sa responsabilité doyen fay mouvement pour le progrès social des aveugles du Sénégal su ngeen ma bindee lettre officielle adressée au maire de la ville de Thiès du ma ni dinañ am de mais li ci sama warugar dinaa ko ci def te yàlla yaakaar naa aussi mën nañu ci suturaal merci. merci